dëpp lamb amul barakati laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi dëpp làmb amut c'est pas vrai xëy na kay la yàlla di nattu di ko won boppam yàlla daf ma doon won boppam ndax booy wax ni lii dina ñëw sel bi li muy wax ñëpp gisaguñ fi ab seetkat boo xam ne day taxaw di wax naan lii bisub sàngam dina ñëw deret dina tuuru sabarkat yi concurrence ak man maag ñoom duñu benn bugguma bokk ak ñoom man Selbé Ndom eh bugguma bokk ak ñoom bu ñu dundak man loolu ndax man dund ñoom loolu ñenn ñi samay doom lañu ñëw nañu sama kër di ma seetsi si di ma laaj ma di leen waxal man ak ñoom duñu benn ku ñeme média yi bëri na télévision yi bëri na demal li ngay gis nga waxal ko sa bopp jël sa responsabilité ñu xam ne ñeme nga am nga fit li ngay def mën nga ko nga dem liggéey defal sa bopp defal say waajur moo gën nga topp ci derub Selbé naan bëgguma nuroog moom man mii maa bëgg te bokk ak ñoom man Selbé Ndom eh du ma seen moroom boo bëggee dégg-dëgg rek bañ commencé wax ba tey kan nga fi gisagum fii koy wax naan dimanche bii di ñëw deret dina tuuru am sitoo foo ko gisee dëgg neexut yàlla dafa bañ soxor ndax lépp lu nekk sa biir xol bi muy xoñ-xoñ nga di ko wax ci nit rek jëmale ko ti nit rek jëmul ci nit kooku ci yow mi mu nekk sa xol bëgg laa rey ba nga génn ko ci yow la ne nañ jéem a mel ni selbe Selbé tekk na ci làmb ji Selbé tekk na ci wàll président tabaarakallaahu sant yàlla ba may wax ne Ablaye Wade dina génn ci réew mi Macky Sall lay doon eh, njiitum réew Macky Sall toog na ñaari at ak ñeenti weer doog koo doon sant yàlla nañu jéem a def ni man moo gën ñuy jéem a man concurrence wu ma kenn bu ma sañoon seetkat yëpp dinañ dajaloo kenn ku nekk la nga am ak la nga xam nga génne ko mën caa liggéey teral sa bopp teral say doom teral say waajur teral kullu doomu aadama bu ca wësagam xëj waaye nekk fi naan dañuy concurrence diw diw man soxlaw maa nuroo kenn kat xam nga man su may roy damay roy ci ña ma gën a gëm yàlla ña ma gën a gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ña ma gën a gëm Sëriñ te duma ko nangu